ci caution yi nee nañ ba léegi daal affaire bi amagu riche quoi daf mel ni gars yi jël fiche yëpp ñu ngi commencé waaf quoi. mais en en parenthèse coññaa coññaa coññaa paasal <laughs> paasal bu ko reetaan <laughs> paasal coññaa réaction bi mu def sortie bi mu def nee na gaa yi dajale nañ ko 15 millions voilà bu matul nag moom dana dana bàyyi. waaw bu matul dana bàyyi non coon kay li dama ko déglu ci suba ci fajar mais coon li mu wax lépp. Mhm. moo tax euh, c'est dommage qu'on en soit au stade de démystifier et démythifier le sens de la présidence d'un État. Mmh, mmh, oui, oui. C'est dommage. Oui, oui. C'est dommage, c'est dommage oui. qu'on en soit à ce stade-là au Sénégal. C'est dommage. Après, ah. je ne dis pas que c'est le cas de Tchon. Mmh. J'ai écouté son discours, c'est le sens de l'implication des populations. C'est vrai. mais sauf que ce ce sens d'implication des populations waa Pastef am nañ ko ba pare. Mhm. ñoom dañuy pare pare jox la xaalis. oui xanaa ñooñu bëgg. Mhm. bëgg nañu di ñu te kenn laaju leen xaalis. kenn laaju leen ko baa xefee boo leen nee bu doyul ñu dolli ñu ñëw dolli la. Mhm. moi je veux juste une chose muy coor ñaar di yeneen candidat tout le monde à un moment donné réew mi dafa soxla sérieux ak crédibilité. ak surtout engagement fort. coon li mu wax mën naa ko dégg par rapport à plusieurs choses mais en même temps je me suis rendu compte que dafa mel ni ko amul pexe. déception amu ci. je pense je comme cet sentiment ce sentiment de regret. Mm, mm. bu ma xamoon lii du ma ci dugg. maa sama ay business. sama mm, njaboot sama nangam. tu sens quelqu'un qui se dit <tsk> dommage merde mënut a nekk. mais parce que parce que sunu dëkk yi. pour administrer que mm-hmm. nga nekk fils du terroir jóge ci biti ñëw indi teraanga il n'est pas dit que da daanu la jox li nga bëgg mm-hmm, mm-hmm. parce que système bi moo dëju ba pare daaju ah saa yi li ñu li ñu dal yàlla ñu yàlla dimbal li ñu dal li ñu dal métti na te te te ni ni ni ñu koy waxee euh, mooy euh, juddoo fi rek wala am parcours rek doyatul <laughs> parce que maa ko doon wax euh, ma ne leen bu doon loolu la kon tey jii Bougane mënoon na jaay parcours am. te mi ngi koy jaay. Mhm. naam jar na wala jarul élection mu ñu ko mën a wax. mais gis nañ ñoo xamante ne euh, li mu li mu li muy wax ak yi muy kii yëpp teewul politiquement ba léegi poids am ñu ngi koy xoolaat. yow boo ñëwee dund États-Unis wala nga dund feneen ak feneen foog ne am nga parcours wala man self-made man la gars war nañ ma gëm xool ci man exemple ne loolu doyul fii. Mhm. benn sociologiquement culturellement mais beneen bi aussi ñun suñu ay élection de bout en bout indépendance ba fii ñu toll tey di wax neexutu dégg nag mais kilifa mhm. yi ñu ci bëri si ñoom France mooy am nu moo doxalee rek am mhm. condition yu moo posé suñu réew yi pays africains yi pays francophones yi daal di am nu ñu taxawee am benn bu ay buy ñëw taxaw am jëmmi nangam ci ay promesse fekk dafa mel ni ab gouverneur et ka sant mu la def le leadership moo war a changer ci Sénégal comme ci Afrique leadership koo xam ni wala ñoo xam ni dañuy ñëw nekk yeneen nit mm-hmm. am ambition ba pare du ñu faale dara dëgg rek lu jafe la nag moo tax Ousmane nit ñi am nañu yaakaar ci moom man damay bokk ci ñuy wax yàlla bu yaakaar bi tas mm-hmm. mais malheureusement ci fiñ ci toll nii c'est désuet waaw mm-hmm. ah, c'est c'est désuet c'est affaire bi xaw na jaxasoo et malheureusement pour le cas de Thionia ak ñu mel ni moom mm-hmm. nekk ay candidats war a indi seen ay caution jamono bi ñenn ñi indeeguñu caution ñenn ñaa ngi commencé raser les murs mm-hmm. di daw ah. parce que euh, trente yi matagul wala bu matul itam parrainage ba xam nga ni doo jàll mun nar a mais ñenn ñi tamit dañuy dañuy dañuy dañuy dëbbali njaan nit ñi ah, yóbbu seen 30 millions taf yëngal yóbbu parrainage boo xam ne leer na ne du jàll. waaw ah. après ñu delloo la seen 30 millions nga ne au oh, moins j'ai osé essayer. xam nga moo ko ah, ñoom dañuy daw fuite en avance bi ñenn ñi parfois c'est du merchandising wala. wala à la limite du branding. Euh, pour t'exposer te faire voir. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, te faire accepter et puis pouvoir après continuer à être euh, dans les mm-hmm. cercles. parfois c'est ça. mais une chose et c'est le cas ñu bëri effectivement mhm. daañ ci génnaat parce que yaa a une sélection naturelle qui va se faire oui, oui. et cette sélection naturelle permet de voir plus clair ku dë ku dë dëgëru li nga génn bul sonn waaw te loolu moom lu jar a bàyyi xel la mais bu bu bëggoon naa am sa avis tamit ci ci ci benn vent d'apaisement boo xamante ne constaté nañ ko euh, mooy tey ji euh, ñoo xamante ne tool nañ ci 17 jegeñaale Ousmane Sonko ñuy libéré tey Eh, fële ca tribunal bu ndakaaru bi eh, donc ku ci mel ni yarga si eh, ma waaye libere nañ leen ku ci mel ni Paate Maas ak waa garde corps Ousmane Sonko yi ñoom ñëpp relaxé nañ leen tey ji au total toll nañ ci 17 personnes loolu xanaa xibaar bu xibaar la boo xamante ne vraiment. mu ngi ni El Hadj Mapaté Mbaye Ousseynou Ndiaye. Ibrahima Lo Moussa Sadio Ansou Sané Mouhamed Moustapha Guèye. Euh, Cheikh Ibrahima Dieng Massar Diagne Elimane Mouhamadou Thiello Salif Ngom Mass Diop Mohamed Balde Babacar Sy Yarga Diouf Fallou Danfa Issa Diop ak euh, Amet ñun ñëpp yeewu nañ leen. c'est une excellente nouvelle. j'aurais bien aimé Abdou Karim euh, Gueye bokk ci Cheikh Oumar Diagne bokk ci maire Amidia je sais pas quel est le problème avec cette maman. Mhm. j'aurais bien aimé mu bokk tout comme. Euh, Mati Sarr ñaa oustaz Assane Seck.